kañ fay jàngale jàngaleem di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi doon interpréter am njàngaleem moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu doyloo ca Sidi Ahmed Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu ñu bare ci njabooti réew mi ak njabooti biti réew tënku ci ekoolam ngir jàng diine dégg ko pratiquer ko waaye tënku ci yarinam ci wàllu defar doomu aadama tabax ruuxam couleur jikkoom ñu di leen askanele ci tarixaam ñu tuddee leen tiijaan ñi ñoom ñu am seen boobu droit waaye ñu seetlu Omar Sall ci aw doxinam ci wàllum njàngale ci baam yi muy def ca miin baram du toog ci jotaay mukk jàngale ba jóg te saagawul waa boor bii yooyu saaga yàgg lool yii ñu dégg ko bu metti lool ñu ne xëy na daa xamul nañ waxtaan bu amee lu muy laaj lu ko ump nañu laaj loolu ci at yu yàgg waxtaan wi mënul am te saaga yi itam dakkul lum laaj sànni ci internet bi njabooti tiijaan yii ak seeni boroomi xam-xam luñ ci jot mu nara a lëntal xelu njaboot ñu leeral loolu fum bokk ci diine ji ñii di bind yi téere ñii di woote yi ndaje internet ba ñu nekk nag fësal fa seeni kàddu am ci ndaw ñi ñooñ am nañ jot googu ñoom it bokk ak ñoom internet bi lu ñu leen tël bàyyi fa ñu fekk leen fa leeral ko kenn la ci ñooñu oustaz Makhtar Sarr kenn la ci ñooñu oustaz xalifa Mbuub kenn la ci ñooñu oustaz Mouhamed Kama Thiaw mii daane léegi kenn la ci ñooñu seex Baye ñas mën naa cee tudd ñu bare ñooñu ñoo gën a ci ñi bokk ak ñoom terrain internet bi loolu dëkkul xas yi ŋàññ yi saaga yi yéjj yi ba àgg ci nit ñu yéen kooku ngeen topp ni moo leen di jàngal moom doon jullit di baayam dub jullit yaayam dub jullit biñ koy jur judduwul ci diine te ki muy waxal dereetu yonent bi la sallallahu alayhi waaye loolu dadul aw xas yow judduwoo ci diine rek waaye dabe si nga ñi ci juddoo ëppalewuñ la ci saxaaba yi gën ci xeet wi gannaaw yonent bi ñu bare ci ñoom lislaam nekk na fi te bokkuñu ba seen dund cate ñuy door a bokk jóge ca ña yées bokk tey ci ñi gën te dañoo dabe rekk waaye xàmmeewul xàmmeewu ko noonu jàpp na ni loolu comme na saaga yi gën a ñaaw rekk bii moom jekku na ko nañu ko ratax seen waa ji ngeen topp du ab jullit miseel la tuddoon doyu ko mu ni ak jubadeem moom kooku ngeen topp dafa daan yëngatu ci xaalis bu lewul ñiy feesal kaso yi tey ci ñooñu la bokkoon wax ni looloo waral ñu dàqee ko Algérie mu tuxu fa ñëw Faas te ki muy wax bi muy toppatoo am njàngam ak gëstoom nit yàlla yi wàcc na ci réew mu ñuy wax Tunisie ñu gis ko xam-xamam ak jikkoom ak mën jàngaleem buuru réew ma proposé ko dénk ko ministère éducation buuru réew ma proposé ko boobu ministère bi mu jotee ci leetaru buur bi fajar fekk ko ci moom réew mu ne ñii kuñ tënk bëgg te man li may wut di jiite ab ministère du ko may kooku la ni lim yitte woo woon mooy xaalis bu setul kooku muy wax nee na daawul julli tàkkusaan waaye daf ko daan tere sax njabootam mooy ñun ndax ñàkk julli tàkkusaan googu sart la bu mu waxtaan ak jinne ju bon jinne ji di am yu mu koy jox moom it muy am yu muy defal jinne ji te jinne jooju la mu bëgg da caa bokk yaag sa mbooloo dangeen di bàyyi julli tàkkusaan Omar Sall wax te kii muy wax boo demee cim njàngaleem dafa fek muni aya bi yalla nan hafizu ala salawati was salati al wusta ay bi yalla nan na ngeen fonk julli jul yep dugg mu wat ci ak julli borom xam-xam yep ni kon gogu ñu seppi wat amna masiya amna bu mu eppele yenen julli borom tarikha bi Sidi Ahmed tijani ni moom ni mu déggee assalaatul wusta muy julli tàkkusaan mu ni taalibeem yépp lu ngeen mën a jàpp waxtu wu jot julli leen waaye waxtu wi ngeen war a gën a ragal pour faat ko nay tàkkusaan ndax faat tàkkusaan dafay màbb oy jëf ki jàngale lii la ni moom daawul julli tàkkusaan waaye daf ko daan aaye sax ay taalibeem Omar ay wax bokk na ci muy wax bii ci mujj ni mbooloo mu toog sànni benn affaire tiim ko naan allah allah loolu ay caaxaan la mu teg ca ni muy waxe ni maa ko wax kum naqari deewal am ci mbokk yi nag ñu ni bu boobaak léegi ñi ngi jéem a waxtaan sottiwul ñi ngi leeral yi muy lëntal ku bëgg lu leer rek boo dégloo ñaari camp yépp di am lu leer bàyyiwul loolu mu ngi continuer di xaste mi ngi continuer di ŋàññi comme réew mii ñu dëkke dafa am ñu ñu boole takke ñaar ñu jàppante nañ dem ci kanamam mu laaj leen ku tooñ mu ne la bàyyil sa tooñ yi kiñ tooñ ñu ne ko yow dañ lay tooñ looloo waral mbooloo mii ak ay benn ti benn ci mbooloom tiijaan yi dem ci kërub àttekat boobu ngir mu dox suñu digganteeg Omar mii keroog biñ ko jëlee nag le 17 novembre yóbbu ko fee ca ruq ba am na ci ay mbokki jullit yu gis ni ay jullit ñi ngi jàppante te kenn ku ci nekk nee nga dangay jàngale tee waxtaan ñu teg lépp ci suuf bi ñuy waxtaan yëg nañ nit door nañu waxtaan yi waaye sotteegul kenn ci sëriñi Omar Sall yi di doktoor Mouhammad Ahmad loo ci jotaayub jàngale kaayam njabootam laaj ko waaw luy seen taxawaay ci tolluwaayu Omar Sall muy leeral ca loola ba ni dañ koo tooñ rek jaay ko doole pelenti ko jëli ko waaye lim wax ñun ñépp loolu la ñuy wax kon kuy pelenti rekk dajaleel pelenti yu bare kuy tëj tabaxal kaso yu bare loolu waxam la moom Ahmad Lo loolu mu wax nag lëm bind ko gën a ñaaw moom Mouhamed Ahmad Lo moom moo bind ni mbooloo moomu ñu naan tiijaan yi boo leen fekkee ci géew bu ñu toog di tudd yàlla lal benn affaire boo rombee dégg seen coow li dangay defe ni ay xaj yuy xëccoo medd ñoom nga romb lii Mouhamed Ahmed loo ko bind mooy sëriñu Omar Sall Ahmed loo moom moo bind ni diine ji am na ci juróom-ñeenti ponkal yooyu ñu baree leen topp waaye juróom-ñeenti yooyu lu naqari diine ji tey ñoom ñoom juróom-ñeenti ñooñu ñoo leen ko teg mu tuddee juróom-ñeenti yooyu tisaatu rëhtin ñi alxuraan doon wax ni yufsiduuna fil ard foo leen fekk dangay defe ni ñi ñuy defar lanu te yàq rek la ñuy def bi muy lim juróom-ñeenti ñooñu moom Ahmad Lo ca la boole Seydi Ahmad Tidiane Cherif Ahmad Lo ko bind. moo bind ni Seydi Ahmad Tidiane dafa digal taalibeem yi ni leen ku ci manqué dépense mën ngaa dugg ci marché bi place boo jekku dajjil moo ko bind moo bind ni. boo manqué dépasse mën ngaa gàddu sa ngànnaay taxaw ci kaw tali bi ku la romb nga agressé ko lu mu yor jëlal lew na la mu bind ni sii Sidi Ahmed Tidiane ak i njabootam ñoom kenn du leen bindali bàkkaar te Sidi Ahmed Tidiane moo leen ko moo leen ko moo leen ko jàngal moo ca dalal leen noonu seen xel te bi mu koy wax moom Ahmed Lo lam sos teg fa ni Sidi Ahmed Tidiane ko wax li Sidi Ahmed Tidiane doon wax muy ab lettre bu mu ab buur bu nekk ci réewam mu bind lettre buur ba di ko yedd di ko saraxu di ko ñaan di ko waar di ko moytuloo àqu aw askanam ci même lettre boobu la Ahmed loo jël kuppati ca laaj ko neex ni bëcc cib téeréem ni xool leen Ahmada Tijaani li mu wax nee na buur bi yow loo mën a def ak amoo ko bàkkaar amoo yàlla topp la dara mu ni loolu groupe boobu mu boole buur bi ca la boole ay taalibeem Ahmad looy wax sëriñub Omar Sall kooku kon bu ne Omar lii mu wax bu dee moo waral pelenti bi pelenti yi war naa bare daa mujje wax bi waaye lam wax ca téeréem ba Omar ñemewu koo wax kooku pare na pour uuf Omar ñun nag ci Omar mii lañ tàmbalee ndax kee daa bind boo miinul mbindum yaaram buñ la nee lii moo ko bind da nga naan bind ko waaye kii wax ci làmmiñ wu ñu dégg boo xasee dañ xam ne dangaa xaste boo saaga dañ xam ni dangaa saaga loolu nag ci la Omar nekk waaye téere ba képp luy firi li ca téere ba lépp ñemewu la firi lépp loolu na ko ñëpp xam mbooloo mii nag bi yooyu dakkul te mën a ëppi loxo ndax am na ci biir tiijaan yi ñooñ waajoon nañu ngir jóg ak seeni pexe comme réew mi bindoowul noonu tiijaan yi yarewuñ leen noonu ñu ni nañ dem ci ki ñu boole yilif ci wàllu nguur ci wàllu atte mu atte ñoog ñii